أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ñoo ngi doon ànd ak yéen ci xisasul anbiya ñu toll ci muusa alayhi salaam ak firawna boroom kàttan bi sunu boroom subhaanahu wa taala dimbali na yonent yàlla Muusa ak Haaruun ci seen noon bu bari kàttan boobu ba yàlla tabaraka wa taala dimbali leen alak ko ci géej googu tudd mer Rouge sunu darsu tey mooy wax ji ko yàlla subhaanahu wa taala wax moom firaw ni ko fal yawma nu najjika bi badanik li takuuna liman xalfaka aaya suratu yunus aaya 92 firawna faatu na war na nekk kéemtaan war a nekk ak waar wa yaa lahaa min aaya ak war a nekk kéemtaan lan moo tax mu war a nekk kéemtaan ndax Firawna dana woon maay yàlla dajale nit ña bañ ñëw fa hashara fa naada fa qaala ana rabbukumul aala allahu akbar Firawna mu am fit Firawna bu mu waxee moom mooy yàlla Iblis dafa jóge ba ci kaw tëb ci kaw daanu ci suuf mu ni léegi man de maa gën a bon ñëpp waaye lii ñemewuma ko xam ngeen Iblis waxul fenn man maa yàlla bal sax dafa ne inni axaafu llah rabbal alamin man ragal damaa ragal yàlla borom bindi keroog Badr mu ne inni raaytu ma la tarawna gis naa lu ngeen gisut de man damaa ragal yàlla waaye amma Firawna moom moom daa dajale peuple bi ba ñëpp taxaw mu ne leen maay yàlla yemul ci maay yàlla sax mu ne al ala bi gën a kawe ci yàlla yi man la yemul ci loolu mu ne leen maa alimtu lakum min ilahin xëyri eh attention ku ma dégg fii nga naan yàlla am na rek dama lay rey dégg ngeen li ma leen wax est-ce que dégg ngeen ñëpp ne waaw mun a acc dem leen allez waaw waaw léegi comme dee na yàlla dina dee yàlla bu dee yàlla buy xiif yàlla buy mar yàlla buy feebar yàlla buy am ay jafe-jafe kooku du yàlla qaala ibnu abbas wa gayru wahid shakka banu israil fi mawti firawn firawna bi mu déewee xam nga dane woon maa yàlla ba ñëpp tiit ñëpp ragal ko ñëpp yaakaar ne firawna dëgg dëgg mooy yàlla waa banu israil bi ñu déggee firawna dee na ñu ne ii deewul de kii mooy yàlla ay man man de duma wax dee na ku fi wax dee na ba mu jàppal allahu akbar sakk ñu sikki sakk kenn gëmul ne firawna dee na hatta qaala baaduhum ba ñenn ñi sax ñoom ñu ne innahu laa yamuutu de moom du dee de da ngeen da ngeen dof moom mooy yàlla ngeen ne dafa dee deewul dafa dugg ci biir géej gi rek li ngeen gis ko mu ñëw allahu akbar allahu akbar فأمر الله البحر فرفعه على مرتفع إلى على وجه الماء bi gaa yi sikki sàkkaane dafa dee ñi ne deewul yàlla mu ne géej géej mu ne la bayka yow sama borom mu ne yëkkatil ma Firawna ba nit ñi gis ko ñoo xam ne dafa dee géej gi daal koy tëmbal ci kaw oh mu ne lasar ak biir bu rëy bi ndox mi dugg ci biir bi ba mu fees mu tàllal fee benn tànk tàllal fi benn tànk tàllal fi benn loxo tàllal fee benn loxo gaa yi gis mbax na bi nekkatul ci bopp bi gaa yi daal di gis gilet bi mu soloon paara bi gilet bi nga xam ne day baare jaasi bi buñ buñ ko dóoree jaasi di dugg buñ ko jamee xeej di dugg ñu gis dàll yu mu soloon montante yi tëm ñu xam ne ponkal maa ngi nii da doon wax mooy yàlla waaye te yàlla won na ko ne doo yàlla yàlla won ko ne mbindeef nga bu doyadi ndaxte yaa ngi nii daan ngay faatu wa alayhi dur'u li mu soloon arme guerre bi mu soloon ñépp moom lañ ko xamee yére bi nga xam ne moom la daan sol bu guerre amee ñépp xàmmee ko ñu gis ko mu sol ko lu tax li yataxaqaqu bi zalika min hilaakihi pour mu leer leen mu wóor leen ne waa jaa ngi nii daa dee wa yaalamuna qudratu llahi alayhi ba ñu xam yàlla mooy borom kattan mbokk yi kan mooy borom kattan allahu akbar yàlla koo fi dégg mu naan maa mën lii maa moom lii maa def nangam déglul rek léegi nga dégg ñu ne deena mu allahu akbar yàlla ana firaana mu dajale woon nit ñi mu ne maa yàlla mi ngi ni tey dee waaye bu mu dee xam nga lan la yàlla wax yàlla mu ne fal yow ma tey nu najjiika bi badanika dinaa la musal musal sa yaram dinaa musal sa yaram bi li takuuna liman xalfaka aaya yàlla dafa bëgg ñépp gis ko ñépp teg ko bët ba ñu xam ne kii nekkoon fii di yàlla yàlla lu du yàlla ndax mu ngi nii dee te yàlla moom du dee naa la tey ne ñoppalee teg bët yàlla génne yaram bi allahu akbar banu israil yépp ñëw mu nekk feet ñu gis ko mu ne lang mu ngi tëdd bal sax yàlla yemul ci loolu yàlla dafa ne bàggu géej gi génne leen ko génne leen ko génne leen ko ndox mi bàgg yi puus ko puus ko puus ko ba mu génn mu ne lasar ci tefes gi ak déq bu ngand bi xorom si dugg allahu akbar waaye yàlla def na ci yaramu firawna kéemtaan ba fii may wax ak yéen yaram bi mu ngi fi yàquwul ba fii ma ngay wax ak yéen su ngeen demee Égypte ci musée yi firawna mu ngi foofu tëdd waaye ku fay dem visite bu demee mu def attention ndax franc-maçon yi partout dans le monde seen insti seen statue yi seen pyramide yi seen xërëm yi soo fa demee visite rek am na porte yu ñu lay jaara la da ngay sujjootal statue bi wala nga sujjootal xërëm bi bu ngeen demee porte porte millionnaire am na benn bunt booy dugg ci bunt bi di sujjóotal xërëm ndax mënoo faa dugg lu nga def nii ndax dañuy gàttal bunt bi ba fii système bi la parce que bu ñu la nee sujjóot rukool da ngay bañ léeg ñu gàttal bunt bi fii booy dugg rek foog nga ne nii nga sëgg boo sëggee rek nga sëggal xërëm bi moo foofu jarta dem jarta dem de looy koy wuti loo fay seet koy seet lan moo fa nekk bën njëriñ xërëm xërëmu franc-maçon Firawna tamit noonu lañ ko def fi ñu ko denc boo ñëwee di dugg di ko xool rek foog nga sëgg moom demee ne ñu ne sëggal nga ko parce que xam nañ ne bu ñu nee julli di da ngeen di sëggal Firawna lan la julli di def dañuy bañ moo la ñu def ko bunt bu gàtt soo ñëwee rek nga sëgg ñu ne sëggal nga ko de ñëw da nga doon bañ sëgg nga moo la yooyu da ngeen ci bàyyi xel partout nag Sénégal gi am na fi mu ngi fii ci ci wetu géej gi da demee foofu rek romb leen bu ngeen rombee oto ngeen gis buntu buntu bu gàtt la xërëm baa ngi ci kaw tiim buntu bi soo ñëwee boo jaaree ci suuf rek jaar ci buntu bi rek mooy sëggal nga xërëm bi loolu mooy pexe franc-maçon yi ci kaw suuf ci àddina bi mooy xeex lislaam lépp lu lislaam wax rek ñu dindi ko mbokk jullit yi yàlla génne na yaramu firawn pour mu nekk kéemtaan ndax yàlla ne ko li takuuna liman xalfaka aaya dinaa génne sa yaram bi ba ñépp gis ko teg ci bët pour mu nekk kéemtaan ba ku la gis xam ne doo yàlla kuy woote ne maa yàlla yàlla rey ko yow boo déggee loolu est-ce que war nga wax maa yàlla mais ba léegi Sénégal da ngay dégg ku ne man yàlla laa yow yàlla nga kii yàlla la micro bi yàlla la téere bi yàlla la sajaada yi yàlla la karo yi yàlla la est-ce que loolu mun naa nekk yenn saa yi nga dégg kenn mu ne man duma yàlla waaye damay gis yàlla man damay gis yàlla la ilaha illa yenn saa nga dégg kenn mu ne kaay ma wan la yàlla ñu dem sax ba nga xam ne dafa am tarixa yoo xam ne tarixa yàlla yàlla ñun ñooy yàlla yàlla yi inna lillahi wa inna loolu bu mu nu mu nekke yàlla bët du ko gis ci àdduna alxuraan moo ko wax de laa tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar yàlla nee na bët mënumaa gis man maa mën a gis bët beneen aaya bu ne laysa ka mislihi shay man yàlla nuróowuma ak dara kon li ngay gis ba ne yàlla la yàlla nee na shay la kon nuróowuma ak loolu ulama ul aqida al usul ñu ne fa kullu ma xatara bi dalika fa allahu bi xilaafi dalik lépp sa xel lu mu xalaat ak sa xol ne yàlla nii la mel yàlla mu ngi ci ginnaaw loolu yàlla melul noonu ëllëg yowmal xiyaam la ñuy gis yàlla mais àdduna kenn du gis yàlla yàlla yowmal xiyaam lañ koy gis innakum sa taraw na rabbakum yonent bi loolu la wax eh yéen a ngi nii di ngeen gis seen borom comme ni ngeen di gisee weer yi waaye du fii de du àdduna de mu ne qultu wa firawna allazi zukira qissatuhu ma zalat jussatuhu mawjuda fi lmatxaf almisri mu ne firawna bii ñu leen di wax te mu àndoon ak Moussa doon xeex ak moom yaramam ba léegi mu ngi ci mise Égypte yi bu ngeen demee ngeen gis ko mu ngi foofu seex bi tudd Mahmoud Misri yi moom nee na gis na ko nee na gis na yaramu Firawna waaye Égypte day sori ci yéen dem leen internet rek ngeen demee internet ñu génneel leen yaram ngeen teg ci bët ba léegi yaram bi yàquwul nëbbul waaw lan moo tax ñeneen ñi bu ñu déwee nëbb Firawna moom ba léegi nëbbul lu tax parce que yàlla moo ne ko dinaa sauver sa yaram ba ñépp gis la nga nekk kéemtaan pour kenn dootul waxati moom mooy yàlla inna fi dalika la ibratan liman yaxsha yaaye nee na nekk na ci loolu kéemtaan pour ku ragal yàlla ixwatal iman wa qad kaana hilaakuhu wa junuuduhu fil yawmi ashura xam ngeen firawna ban jour la dee kan moo xam bi firawna ban jour la dee kaddu di nga am kaddu fii bismillah am ma ñi ñi ñi bismillah firawna ban bis la dee bisu tam xarit bisu tam xarit ban mooy bisu tam xarit Sénégal bisu tam xarit lan lañ Sénégal lan lañ ciy def bisu tamxarit lan lañ ci def Sénégal déedéet lekk cere très bien cere yi bis boobu la Firawna dee ci biir géej bisu Ashura la ko yàlla labal ci biir géej moo tax bisu Ashura lu bëri xew na ci Ibnu Abbas nee na qadima annabiyu sallallahu alayhi wa sallam almadina walyahud tasuumu yowmu al-ashura فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه فقالوا هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنتم أحق بموسى منهم فصوموا Ibn Abbas nee na yonent bi alayhi salaatu salaam dafa ñëw Medinatul Munawwar mu fekk yahud yi di woor bisu tamxarit mu ne leen lu tax ngeen di woor bis bi ñu ne ko ci la yàlla musaloon Muusa daal di labal Firawna ñu koy woor di sant yàlla ndeke gis ngeen koor sant yàlla la ku bëgg sant yàlla rek wooral yonent bi ne leen yéen saxaaba yi yéen a leen yéen jullit yi yéen a leen gën a yey ci Muusa kon woor leen ko Firawna dee na Muusa rëcc na banu Israël rëcc nañ Firawna yàlla sëwe na yaramam pour nit ñi tekki bët xam ne du woon tus yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne saxaaba yi woor leen ko ndax yéen yéen a leen gën a yey ci Muusa Asiya imraatu firawna firawna amoon na jabar bu tudd Asiya waaye mook jabar ji bokkuñu woon pas-pas moom da- jabar ji dafa gëmoon yàlla firawna nekk yéefir waaye xam ngeen ne soxna soosu kaanat taiisu fi naimin laa yaxtaru fi qalb soxna si mu ngi doon dund xéewal yoo xam ne kenn mënu ko xalaat ci ndax ku nekk ci pale ku nekk ci pale jabaru jabaru buur ci biir pale yan xéewal lay dund ndax dina manqué dara ndax dina manqué ndox mu sedd ah mbokk yi ndax dina manqué café ndax dina manqué ndax jëkkëram mooy borom doole ji allahu akbar mooy borom xaalis bi jëkkëram moo moom dëkk bi ndax noonu la mel waaye moom ak firawna bokkuñu woon ngëm-ngëm wa kaanat tabgadu istikbaarahu wa tajabburuhu wa qaswatu qalbi ndaw si gis na jëkkëram nu mu mel dafa bandi dafa saay-saay xol bi dafa wow ni muy def nit ñi waaye jabar ji moom d'accordul ci loolu su Firawna di dóor nit ñi wala mu leen di xas wala mu leen di rey jabar ji da koy wax bàyyi li ngay def wa fi yawmin min al ayaam benn bis fekk Moussa mi ngi nekk xale dina am Firawna daal di koy woo soxna si daal di koy jël soxna si ku bëggoon Moussa la mbëggeel gu rëy Firawna bi mu jëlee xale bi lan la wax kii tee ma koo rey est-ce que sax du xale boobu ñu doon wax moom moo war a màgg daaneel ma moo nekk nii naa ko rey jabar ji ne ko déedéet bul ko rey kii xanaa xamoo qurratu ayunin lii mooy sama reeni xol moom ngeen di wax fleur de mon cœur noonu la ah monsieur c'est comme ça on dit ah ok mooy sama fleur xol ndeysaan saa nga gis benn waaye bu wax xal bu wax bu bind benn xale bu jigéen benn message bu mel noonu nekk ko taf fleur de mon cœur xale bu jigéen bi dof ci saa si waaw waaw seet yooyu ay pexe seytaane la rek yi mu la bëgg a fiiree xam nga booy boo bëggee jàpp jën soo bëggee jàpp jën amoo mbaal amoo gaal nooy def ah déedéet da ngay wut caas boo wutee caas nga wut onze boo wutee onze nga def ci mekk nga def ci benn lekk bu ndaw ci ci onze bi nga tëmbal ko ci biir géej gi taxaw benn jën bu dof jóge ba leen naan eh waaye am naa lu ma lekk eh waaye am naa lu ma lekk eh waay waay waay indil lañ ma benn lekk waay bu jën bi laalee lekk bi def ko bëggoon lekk waaye moom la ñuy lekk wala est-ce que ki jël ki jël ki jël meeb def ko ci onze dafa bëgg a may jën lekk paa bi jënd xar tabaski fekk tabaski jënd na des na fukki fan mu sang xar bi ba mu set mu jënd ngooñ jëndu ràkkal muy jox xar bi muy lekk muy raay xar bi mu koy sang xar bi ne est-ce que waay kii moo baax est-ce que xar est-ce que paa bi day jox xar bi ngooñ bi ak ràkkal bi ndax dafa baax su tax mu koy jox daa bëgg mu ngande bu mu mun koo lekk waaye du baax de su xar bi dofee nag naa ne waaye kii moo baax waaye maa ngi lekk bu baax maa ngi naan ba suur ba bisu tabaski jot mu ne kii moo baax mu jékki-jékki mu gis waa ji daas paaka bi mu ne indi leen xar bi lu xar bi di wax gis ngeen kon ndekkee Firawna baaxul woon ndaw si mu ne bul ko rey kii dama ko bëgg sama xol laa taqtulhu asa an yanfaana aw nattaxisahu walada amaana ñu def ko sunu doom nañ ko jël mu nekk sunu doom bis dinañu jëriñ ndeysaan Firawna daal di koy bàyyi comme dafa bëgg ndaw si mu daal di koy bàyyi wa lamma araada firawna an yaqtula dafaat anhu wa dafaat anhu wa qaalat lahu uriduhu li nafsi firawna bi mu bëggee rey Moussa rek bi mu nekkee xale mu ne bul ko rey bàyyi xam ngeen ndaw soosu amul woon doom mu jël Moussa def ko doomam wa taamal maa yi qawluhu qawluha an Moussa alayhi salaam asa an yanfaana yéen ñépp déglu leen wax ji nga xam ne moom la Moussa wax ci aaya bi ndaw si wax ji mu wax ne bul ko rey nañ ko jàpp mu nekk sunu doom xanaa xamoo ne sax ndax bis dina ñëw mu jëriñ ñu wa qad anaalaha llahu ma rajjat min annafi amma fi dunya fa hadaahu llahu bihi amma fi alaxirati fa askanaha bi sababihi ljannatihi xam nga ndaw si moo waxoon bu leen ko rey amaana bis dina ñëw mu jëriñ ñu moo tax ndaw Moussa jëriñ na ndaw si ñaari yoon jëriñ na ko àddina jëriñ na ko àllaaxira àddina lan la ko jëriñ ndaw si tuub na dugg ci lislaam àllaaxira lan la ko jëriñ ndaw si ak Moussa ñooy bokk dëgg aljanna firdaws waaye ndaw si bi mu gëmee yàlla nga xam ne bi ko yàlla tabaaraka wa taala di rey ndaw si dafa ñaan yàlla ne ko yàlla yàlla nag ma tabaxal kër biir aljanna wa daraba allahu masalan lillazina lillazina amanu imraata imraata firawna iz qaalat rabbi ibni li indaka baytan fi ljanna wa najjini min firawna wa amali wa najjini min alqawmi zalimin ndaw si loolu la ñaan yàlla mu ne waaw yi mbokk yi ñun ñëpp war nañoo laaj jabaru firawna est-ce que war na dem aljanna jabaru firawna est-ce que war na dem aljanna ci xel ah déedéet jabaru nuux est-ce que war na dem safara ah lu tax jabaru firawna warta dem aljan warta warta dem sax warta dugg aljana lu tax jabaru firawna warta dugg aljana ci xel wala firawna nu mu bonee firawna est-ce que am na turandoo kan moo dem benn koñ ba mu dégg ñu ne eh firawna passe ma bal bi nga ko dégg mu ah France sax doo ko fa gis Europe dem leen Europe tubaab yi li ñuy bon bon bon bon du ñu tuddee seen doom Firawna wala Firawna benn tur kese la ci àdduna bi moo doon Firawna amul keneen keneen ñu bon ñi sax di nga gis ñu tuddee leen doom yeneen ñu bon yëpp waaye Firawna doo ko gis mukk ma ne doo ko gis Europe doo ko gis Amérique doo ko gis Afrique doo ko gis fenn ndax bon léegi kooku jabaram est-ce que warul wàllu est-ce que warul wàllu jabaram ci mbon gi aha kay waaye yàlla yàlla tabaraka wa taala moo aar ndaw si ba firawna li muy bon li muy kàccoor yépp ndaw si dafa baax waaye xoolal nuux nuux nabiyun min al mursalin bal sayxul mursalin waaye jabaram mu ngi safara wala rek kii daa baax jabaram dem safara kii bon jabaram dem aljanna fer boobu doy na waar kon loolu lan lan lañu war a jàngee foofu mooy ndeke mbir mi du sama papa baax na sama yaay baax na rek man damay baax déedéet mbir mi du sama papa baax na rek wala sama jëkkër baax na rek man damay dugg àjjana déedéet tukulóor yi nee nañ ñaamanam ñaamataako ɗanonomi ɗanotaako sa nokki longere a fawe hoƴƴudu tinata ko wuli kono andata safi hmm? tukulóor yi nee nañ nelawal ma gudd jot ñëpp di tëdd nga ne nelawal ma waay du dem mënul nekk de nelawal ma sama wàll mënul nekk wala ah mënul nekk de suñuy lekk nga tibb dànk wala nga dugal ci gémmiñ nga teg ci sa doo doo yëg ne saf na de lan ngay yëg tàng na très bien waaye doo yëg saf na abadan kon nag alxayru laa yanfau illa li faili lu baax lu baax du jëriñ lu dul ki ko def rek lu baax du jëriñ lu dul ki ko def wa charru aydan laa yadurru illa li failihi mbokk yi lu bon du lor lu dul ki ko def wa an laysa lil insaani illa ma saa wala taziru waasiratu wisra uxra benn bàkkaar du yenu bàkkaaru kan sa papa buy jaamu yàlla nekk ku baax su dee dugg àjjana yow boo nekkee ku bon boo dee dem safara boo amee jëkkër muy jaamu yàlla yow nga tëdd di nelaw bu dee dugg àjjana yow nga dem safara boo amee jabar muy jaamu yàlla yow nga tëdd di nelaw boo dee dem safara ku bëgg a dugg àjjana daal leen rek lay def mooy lan jaamu yàlla kan moo bëgg a dugg àjjana fii jaamu yàlla rek jaamu yàlla jaamu yàlla kese amul leneen de amul yóbbaale ma amul may ma ci sa barke amul wàññil ma may ma ci yaaba mu mbokk yi mu ne waqat anaalaha waqad anaalaha allahu mimma rajjat min an nafi loolu ndaw si ñaanoon ne yàlla bàyyi ko dinañu jëriñ yàlla defal na ko loolu amma fi dunya fa hadaha allahu bii bu fekkee ci àdduna xéewal yi yàlla defal soxna si mooy yàlla dimbali na Muusa ba soxna si jub amma fi l axira fa askanaha bi sababihi jannatahu ci sababu Muusa la yàlla dëkkalee soxna si biir aljanna wa min fadaili asiya bokk na ci ngëneel soxna si di asiya am nay ngëneel yu ko yàlla may moom xoolal rek jabaru firawna am ay ngëneel allahu akbar loolu war na doy waar de jabaru firawna yàlla defal ko ay ngëneel ngëneel yoo xam ne sax dañ koy classé ci jigéen ñi gën a baax ci àdduna classement ñu doon classé ñu ne adduna bi ku fi gën a baax lu ngeen di wax adduna bi ku fi gën a baax bi bi ñu bindee adduna ak léegi ku ci góor ñi kan moo gën a baax muhammad sallallahu alayhi wa sallam kan moo ci tegu ibrahim kan moo ci tegu yonent yi kan moo ci tegu kan moo ci tegu sahaaba très bien kan moo ci tegu toxo toxo mbokk yi xoolal ndaw si rek fi mu tolloon ci jëkkër ju bon ji mu am mais terewul ñu koy def ci classement yu mag yi kaanat ibrahimul firawna tu azzabu fi sams firawna dafa bonoon xam nga nu mu doon def comme xam na ne ndaw si dafa gëm yàlla day jël ndaw si weer ko ci naaj bi bu naaj bi tàngee mu takk loxo ndeyjoor bi fee mu takk loxo càmmoñ bi fee mu takk tànk bi fee mu takk tànk bee fee na bàyyi leen ko foofu ba ngoon jot ndaw si du lekk du naan tëdd ci naaj bi su ngoon jotee mu ñëw mu ne ko bàyyi nga Moussa wala bàyyi woo Moussa ndaw si ne ko yàlla yi Moussa ak Haaruna ñooy tëgg yow doo yàlla mënoo dara ne bàyyi leen ko ba suba ñu eggaliwaat ko mu koy def noonu di ko def noonu di ko def noonu di ko def noonu ba ci àgg mu ne lii dafa soof sax xaaral rek kii xaaral takk leen ko suba ñu takk mu ne dem leen ngeen indil ma xeer bu rëy ngeen def ko ci chariot yi ngeen indil ma ko ñu dem indi ko ngandum xeer mu ne yeew leen ko ñu yeew ko mu ne teg leen xeer bi ci dënn bi wala jigéen jigéen ñu wàcce xeer bi ci kaw waaye mbokk yi gis nga xeer bi bi ñu koy wàcce mu jóge ci sario bi di daanu ci ndaw si balaa muy yegg ci ndaw si yàlla xëcc na ruuxu ndaw si fekk ndaw si yégul métit bi bi mu yegee gi gisee xeer bi di wàcc ci la ñaan ñaanam gu mag googu rabbib ni li indaka baytan fil janna ah waa yow yàlla yàlla nag ma tabaxal benn kër benn néeg ci biir aljanna firawna daal di koy rey jëlee nañ ci abu musa al ashari mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kamula min arrijaali kasir góor ñi ñi ci mat bëri na trop waaye walam yakmul min annisa illa ashiya imraatu firawn wa maryam bintu imran wa inna fadlu aisha ala nisaai ka fadli sarid ala sairi taam hadis boobu ko solo muttafaqun alayhi yonent bi nee na góor ñi ñi ci ñi ci mat bëri na bëri nañ amma jigéen ñi nag ñii rek ñoo ci mat këng ñii ñoo mat këg jigéen ñi def ñëpp dañoo manqué kan moo ci njëkk mu ne Asiya jabaru jabaru Firawun wa Maryam yaayu Isa wa Aïcha mu ne Aïcha moom ni mu gënee jigéen ñi mu ngi mel ne lekk bi tudd sariit ci mboolem lekk yi ni lekk bi gënee yeneen lekk yi nee na noonu la Aïcha gënee yeneen jigéen ñi yi jëlee nañ ci Anas ibnu Malik mu ne hasbuka min an nisaa'il aalamina arbaa mu ne doy na rek nga xam jigéen ñi gën a baax ci àdduna bi mu ne ñeent lañ Maryam bintu Imran Asiya bintu Firawn Khadija bintu Khuwaylid Fatima bintu Muhammad ne jigéen ñi ñeenti jigéen ñi ñoo gën ci jigéenu àdduna bi kan moo njëkk kan moo ci njëkk Maryam Maryam mooy kan yaayu Isa kan moo ci tegu Asiya kan moo ci tegu Khadija kan mooy Khadija déedéet eh kenn du wax jabar mi ñuy wax soxna yonent bi soxna kenn du wax jabar soxna yonent bi soxna ak kan Fatima bintu Muhammad kan mooy Fatima Fatimatu Zahra mooy doomu yonent bi ñeenti jigéen ñi ñoo gën ci jigéen ñi mbokk yi Firawna rey na ndaw si yaakaar na ne ndaw si perte na chaque jour ñi gëmul yàlla dañuy yaakaar ni yow miy wax ci lu baax wala nga nekk ab yonent wala nga nekk nitu diine ngay wax ci diine suñ la reyee mbir mi mbir mi jeex na fekk xamuñu ne mbir mi lo mbirum yàlla la yow nga nekk ak nga bañ fee nekk mbir mi day continuer di dem bi àddina bi commencé ak léegi dëgg ak fen ñu ngi bëre bis bu nekk bis bu nekk minute bu nekk waaye dëgg mu ngi taxaw rek depuis aadama depuis malaul ala diggante iblis ak aadama ba fii nu toog mbir mi mooy continuer ba Firawna ñëw xool leen Firawna ak Muusa seen léewaatoo Firawna moo jiite woon peuple bi yëpp ba ne moom sax léegi dépassé na nit ñi moom mooy yàlla waaye fan la mujj daal di daanu ci suuf daal di alko kon loolu luñ ciy jànge mooy ku yebu ci ñun ku yebu ku yebu nga gëm yàlla ku yebu nga bëgg yàlla ku yebu nga ragal yàlla ku yebu nga jaamu yàlla wallahi boo ragalee mbindeef da ngaa yeb yàlla da ngaa ñeme yàlla wallahi boo toppee mbindeef da ngaa ñàkk fay xam ngeen xaj ku xam xaj mas ngeen ko gis xaj ak am fulla na fulla de rabaal bu am fulla la nit ñi li ñuy bari bari bari bari bu xaj ñëwee ci kan lay dem boroomam rek bu doon dem marché léegi ci yoon mbedd mi nit ñi li ñuy bari bari bari bari xaj bi du topp kenn kan lay topp boroomam rek kon kay jullit dafa war a topp boroomam waaye am na nit ñoo xam ne xaj sax moo leen ëpp personnalité yàlla bind la nga bàyyi sa sa borom bi nga dem di topp keneen lan nga koy toppee yàlla bind la ngay ragal keneen lan nga koy ragale parce que dafa am doole moo gi yàlla ko ëpp doole lan la Firawna waxoon Moussa di nga xam ne maa la ëpp doole di nga xam ne maa la mën Moussa ne ko wallahi yàlla moo la ëpp doole yàlla la mën fan la mujje Namrud lan la waxoon Ibrahim di nga xam ne maa la mën di nga xam ne maa la ëpp doole fan la mujj Abu Jahlin lan la waxoon yonent bi di nga xam ne maa la mën di nga xam ne maa la ëpp doole fan la mujje ku la wax ne maa la mën rek ne ko yàlla moo la mën ku la wax maa la mën wax ko yàlla moo la mën ku la ne maa la ëpp doole ne ko yàlla moo la ëpp doole loolu mooy pas-pas nit yàlla rek la war a topp warul topp kenn kenn ci suuf ku dul yàlla waroo ragal waroo tiit waroo yaakaar ku dul sa borom subhanahu wa taala mbokk jullit yi firaaw naa ngi noonu yàlla wan ñu comme da doon ngand ngand di fëgg dënnam ne mooy yàlla di jaay doole yàlla mu ne ko doo tus bi ko yàlla di rey fan la ko yàlla yóbbu ba ci géej yóbbu ko ci biir nëkk ko foofu naan loo ko ndox ba biir bu ne pucc yàlla génne kon kay du yàlla yàlla buy lab géej kay du yàlla na yàlla daf lay won ay kéemtaan bu ragal bul tiit Firawna bu nekkoon nit bu ñëwee mu dàq banu Israël mu gis Muusa xar na géej géej gi xar na côté bii mu ngi nii taxaw côté bii mu ngi nii taxaw suuf saa ngi nii mu taxaw mu ne lii ah lii moom dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg lii moom waaye gis nga ku gëmul yàlla xel mi day fatt du xalaat ku gëmul yàlla bis bu nekk moom xam nga lan lay gis dooleem rek ak armée bi doole ak armée am naa sama doole am naa arme moo dal États-Unis moo dal pays dëkk yu am puissance yëpp loolu moo leen dal soo ne nii rek ñu ne acca na avion bombardement yi dem bombardé rek amul xalaat waaw lii lan la ah est-ce que lii déedéet acca bombardé rek rek ndeysaan am na loo xam ne bombardement mënu ci dara laa ilaha illallah bombardement da ko fee mën a jële ah laa ilaha illallah est-ce que bombardement mën na jële laa ilaha illallah ci kaw si doo xool lenn lenn lenn lenn lu lay deltuloo ginnaaw xanaa gis leen Bilaal bi ñu ko takkee ci naaj bu tàng bi di ko dóor lan la doon wax ahadun ahad gaa yi dóor ba sonn mu ne ahadun ahad yàlla kenn la yàlla kenn la gaa yi dóor ba sonn mu ne yàlla kenn la Sumaya noonu lañ ko def koy rey mu ne yàlla kenn la Yaasir ñu koy rey mu ne yàlla kenn la jàngeen wa samaay zaatil buruuj ashaabul uxduud dëkk ba yëpp buur bi di leen rey ñoom ñëpp ñu naan ahadun ahad wa ma naqamu minhum illa an yuminu billahi l aziz l hamid mbokk yi est ce que dee gàcce la dee du gàcce buñ yaakaaree ne buñ la reyee rek jeex na déedéet buñ la rey affaire bi day continuer keneen mooy ñëw jël sa place ku dem rek keneen ñëw ku dem keneen ñëw ila an yarisa allahu al arda wa man alayha kon sunu dars tey fii lay yem insha allah ba samedi bi iznillah yal na yàlla def ci dégg ak topp asalaamualeykum wa rahmatullah